الحمد لله الكريم سلمنا على ak xarala yu bees yi ñu ngi demeeku ni liggéey bi si wàllub gerte gi mi ngi gën a gaaw boo ñëwee fii si Touba Aliya entreprise bi di Global Agro Commodities ay doomu Sénégal di doomu Touba ñoo ko ubbi si njiitalu Serigne Abdou Karim Mbacké fii nag lu tollook juróom fukki nit ñu ngi fiy yëngu waaye liggéey bi li ko gën a gaawal bokk na si machine yu xarala yi jóge ba Inde lépp lu loxo def da koy def di ko tàmbalee si dajale gerte gi partagé ko si ñeent barab si anam yu mucc ayib bi génn suuf si poussière bi bi génne aussi doom yu baaxul yi ak tamit doom yu am qualité bi kenn si suñu guide diñ ko leeral. fi may fan fii mooy élévateur bi fii la ñuy sotti gerte gi. mu jël ko. su ko jëlee da ko yóbbu ci kaw na leen. bu yóbboo ci kaw def ko ci déporté bi. après mu wàccee ko ci camion bi. bi ci la koy wàccee mu lay ko. fi lay def séparation bu bu jàllee foofu mu ñëwaat ci bi. fi la koy layoo ba mu set. après mu jëlee ko ci saako yi ñu génnee ko léegi léegi yéen nu ngeen def ba. lu xarañ lii mu ñëw fii dafa am yeneen dëkk yu ñu ko xoolee mu ñëw fii wala. waaw dafa am yeneen dëkk yu ñu ko yu ko xoolee ci yii nii machine yi indee la inde la jógee lañ ko jëlee indi ko fii lañ ko monté eh, di ci di ci liggéey daal pour jàppale ci ndaw yeeg yooyu. léegi léegi dina wàññi main d'œuvre bi. waaw. maanaam ñu doon ñu doon ñëw bu doon bu ne nag euh, cinq personnes ñoo fi monté machine bu ne cinq personnes ñoo ci ñoo ci ñu gis ni fii da koy séparé da koy séparé ah. quatre parties waaw day génne poussière bi génne xeer yi génnee suuf si euh, génnee gerte gerte gerte bu normal bi noonu la koy def ak quatre parties la koy def. voilà euh, fi ñaata bi xëy ñaata bi xëy. fii 24 personnes 24 ñoom ñoo fi ñoo fi xëy. léegi lii mooy exploitation gerte gi léegi diw gi fan la. diw naka noonu entreprise bi nu mu tëddee ñoom ñi ko nank jàpp na nañu ni dafa structuré day yëngu si wàllum import export doon entreprise privée Serigne Abdou Karim Mbacké di entrepreneur bi gis na ni ëmmam mooy fexe ba am si lu gën a yaatu si biir Touba jàppale population bi si wàllu xëy mi su ko defee jaaxle day jeex nemmeeku bi mooy fii si Touba marché gerte gi gis nañu ni dafay dox loolu liñ fi indi si gerte daanaka amul fenn si biir Sénégal tey jii nag ay jeunes entrepreneurs jóg nañu ngir gën ko moderniser su ko defee gerte gu ni mel dina am jeexantal si koom